mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu ngeen gisee fi ma toog nag moom ngeen xam ne ah waa damaa wéeru woon de du mën a ñàkk de maar ah gis nga <laughs> ak Leewtoo TV ak Saliou Khoule borom Zik FM maa koy faral di wax rek te yaakaar na loolu la yàlla dogal c'est le meilleur parmi les meilleurs ci wàllum animation parce que loo doon lu ne da nga koy prouver wane côté moom prouver na ko ca Soxna FM ba tey ci Zik FM ñu ko ñaanal yàlla baat bi gën a wér barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais barke Serigne Touba mi nga xam ne nii. moom la gëm yaakaar ko tey ak ëllëg sëñ Saliou maa ngi lay nuy di la ziar. Babacar maa ngi lay fay di nuyu waa Leewtoo di kontaan gisoo may ree rek bu déggee du mën a ñàkk rek ay ree damay jàpp xanaa xamoo léeg-léeg léeg may seetaan say loolu rek laa ciy xaar du mën a ñàkk su ma déggee du mën a ñàkk rek lépp lu ma metti woon daf may mujjee neex billaay wallaay taalaay ma lay ñaanal jàmm ju sax dàkk ak nga yokk ba yëg ko di liggéey bi rafet na ñëpp a ngi koy rafetlu yaa am na foo fekk làmb am na foo ko yóbbu yaak sama xarit lamin mm-hmm. waaw loolu ku ko waxul danga ngaa soxor soo mm-hmm. gisee ay ndaw di liggéey danga leen di encouragé waaw mm-hmm. ñu ci bari surtout nag waa bitim réew ñooñu yéen a ngi leen di dimbali bu baax yaak Lamine waaw yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay waaw yaa ngi job job bu nice billaay wallaay taalaay ma koy nuyu moo ko tudd Lamine Lamine bu Lutte TV sama rak sama xarit parce que lu Sénégal yu bëri xam wala ñu ñuy seetaan sax Lamine moom mooy njëkk a jox micro Lamine moo tax may wax ci micro waaw parce que mooy dem Lutte TV moom laa fa fekk mu ñuy door mu safoon trop mais moom bokk na si ñu ma ñimeloo ba pare itam mu nekk booy bu baax macha allah yàlla na yàlla guddal fanam wéral cëram di ko ñaanal ñëpp tey nag li ñu fi indi dañ la tuddee drapeau samedi le 28 ki ñuy wax Bamba fay ak garde corps yi ànd tuppee le drapeau ci làmb maison des garde corps du Sénégal ah mais balaa muy xuus trop ci drapeau bi Saliou dama bëggoon nga tënkal ñu Saliou Khoulé kan la ci lu gàtt. waaw Sall de benn benn Baye rek euh, taalibe Serigne Touba la juddoo Liberté 6 yaroo HLM 5 ñëw dëkk fii nag zone de captage mhm. waaw jàng école 2008 laa am bac. 2008 nga am bac waaw fa 5 ans mhm. institut technique de commerce. Mhm. Ah, ba master. marketing communication ma leen di nuyu. di nuyu Njaate soxna Njaate Njaate Ndaw naa bu ko seetaanee dina kontaan koy nuyu di nuyu waa Ité comme fa di topp xaadim sama mag di jëppi waaw ku xam na ko Sénégal moo daan wax piko wala du aliasun piko pexos andréana poire a junkee poxoy ko sompaare ba noppi ne la maam daan na mais loolu lakk la lan la espagnol la anglais wala lan la eh, suñu bagage rek xam nga bagage animateur moom yaa li ma ci mën a jàpp bariwul eh, eh, dañoo mélanger affaire yi rek waaw ah, mooy ay cunguñ ay cangeñ rek benn la yubooy yaaba waaw mooy toppar ñoppet san xob sikiri mbada ko kisaan mhm. loolu lépp boo xamul saa patar na ma duuna duuna duuna ma duuna daan naa ko dégg ay saala ngi bagage xam nga rek xam nga loolu moom yéen kepp yor nag xam na ah, waaw waaw waaw ci bisaab moom waaw ah, yaroo ci Dakar kenn du la laaj forox ndax toll. toll lay tax sax. ngay mën a santit nag. day nekk sa deret doo si mën sax du dañ. <laughs> du dañ. bul sonn du deñ du deñ du deñ di jëpp yi moo ma ci dugal nag boobu maa ngi jàng école sama paa sax mosu koo bëgg même bu ma koy tàngal ni mosu ko neex mhm. ma nga Tuubaa maa ngi koy ñaanal sama waajuru jigéen ba mu génnee àdduna yàggul maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen ko tedd gi teeru ci àjjana yi gën a kawe barke Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla na yàlla nangu ñaan yërëm bépp bu tëdd suuf di ñaan sama waajur bu jigéen tamit mu ngi ci suuf yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaal yu léegi ne muy ñëw yow si làmb ji ku ko parce que foofu fi nga wax ne fi nga juddoo jàngee fa màggee fa yooyu yaakaar naa bëggoon nga lamb kon daan nga dund làmb si damaa mës a bëgg lamb nag Babacar waaw ah, damaa mës a bëgg làmb euh, Moustapha Gueye moo nekkoon sama mbër Tigre de Fass ah, xam naa di nga ñëw ci Omar nag eh, ah, Moustapha mun ma faa bañ a dem waaye dama xam nga environnement bi nga nekkoon bi nga juddoo euh. te ku wax environnement boobu xam nga ay asalem ay benn tali ñaatali tali waagu ñaay mhm. faw nga laal Fass moo tax waaw da bëgg làmb ba may nekk Blaise Diagne daan naa ngoon yi daan naa dem di seetaan ñoom Gris Bordeaux mhm. mooy école ba Maturin ay ñoom euh, Fallou Lac Rose mm, mm, daan naa ko seetaan mhm. daan naa fa fekk ñoom Baye Demba rakku Mbaye Dieye bi tëgg mm, daan na leen fa fekk ñuy seetaan damaa mës a bëgg làmb nag mhm. làmb moom dama ko mës a bëgg waaw ah, teel naa dem stade nag stade moom teel naa fa dem. kon daal Tapha Gueye moo nekkoon sa mbër écurie Fass daal nga daan supporté ko. kër ñëpp Fass lañ daan supporté ñun ñëpp ay Fass waa lañu woon. ñun ñëpp kër gi ñëpp ay Fass waa la ñu woon mais nag ma jékki-jékki rek dajeeg sama waa ji. kan la moo bëgg loo làmb. <laughs> Baye Mohamed chéri Buri. moom moo bëgg loo làmb moom damay wax dëgg. waaw Omar moom su may wax ci moom sax fii laay fanaan yoo xam nga lépp. mais dinaa la laaj ci moom parce que dama gis sa digganteek moom parce que dañuy gis des fois animateur wala kuy wax ci média ak yooyu Sénégal yëpp di ko nit di la déglu mm-hmm. da ngay faral di. Euh, sa appartenance des fois da nga koy faral di bañ di wax waaw di nëbb comme ni ñu ko xamee ba nga wéet door koo dox lijjanti ko mais dañu gis Zal di ko fësal at ñëpp di ko digg sa digganteeg Balla Gaye sa digganteeg Balla Gaye loolu lan la waaw mais am na loo xam ne boo ko nëbbee sax dana mës a feeñ ah te man moom damaa dëggu moom damaa dëggu ci li may def te yaakaar naa ne warul yàq dara ku ne am nga koo faral yàlla mi sàkk ñëpp sax moo jël Moustapha ne moom la bëgg waaw ah, ne ko yàggat ñëpp waaw léegi nag ku ne sañ ngaa far dëgg la du neex ñenn ñi peut-être am na ñu ma bëgg ñu faral mooduloo mm-hmm. te boo faralee Modou Lo munoo faral Omar day metti <laughs> wala néew na bokk néew na nga faral mooduloo Lo faral Omar mm-hmm. néew na ci nit ñi mm-hmm. léegi nag euh, dama koy wax léegi li ci rajo bi sax Omar sax wax na ma ko ne ma Zal bàyyi li ngay wax dañ la mere de ma ne ko Omar ah buñ ma ci meree tamit man yooyu garaawul ci man de waaw ah, man naa xool li sama kanam rek waaw ah, moom dama laa bëgg te dëgg la ci man. waaw ah, mënu ma koo nëbb. mais ban jikko ak ban comportement la la wan ba tax nga assumer loolu ba di ko fësal ñëpp di ko dégg toujours ci sa ay wax Omar ban jikko la la wan Balla Gaye 2. Euh, dëgg la Babacar Omar xanaa xamoo Omar du mbër Omar Omar du mbër de. Hmm. lu tax du mbër. Omar daa mënta bëre daa mënta xewal daa amul fit. waaw ah, profession am la rek. waaw ah, mais du mbër de Omar du mbër de. Hmm, liggéeyam la mais du mbër. ci jikko ji ngay wax yow kon. boo toogoon ak moom di nga xam li ma lay wax yoru sa jikkoy mbër barke Serigne Touba xol bu set wicc la yor dama koy wax Thierno géey léeg-léeg ma toog ak wax ko ko ne ko def ba nekk mbër jaaxal na ma parce que Omar Omar baax na Omar yaru na Omar nu muy def sax ba bu duggee ci góor gi ni muy mel noonu loolu jaaxal na ba dama ne kuy soppeeku <laughs> Omar bu duggee ci góor bi beneen nit lay nekk <laughs> te boo toogee këram du si gi sax xool seen bët du ñeent barke Cheikh du Bamba Khadimu Rasoul Omar seen bët yi du ñeent dafa bari kersa ah Omar baax na Omar dafa yaru torop Omar man nu mu def ba nekk mbër jaaxal ba ah, waaw baax mën a joxe ñam mm. démb ci mujj mm. damaa toog rek ay boitu raisin la génnee waaw ah, ñuy lekk ba ba ñuy ñibbi man ak Omar Waly Fashion billaay wallaay taalaay barke alxuraan dañoo dugg rek mu génnee boitu resin yi mm. Omar taalibe la du génn Omar du doxantu buntu këram rek mbaa biir këram man Omar daf maa dépassé sax. kon daal su ma la déggee ngay jikko moo leen boole. Hmm. jikko ju baax daal. Hmm. Ah, ak ak mën a bëre. ak mën a bëre gi waaw man ci defet yi. fu la sonaloon Fass. non damaa sonnoon ci defet damay wax dëgg. Hmm. ah ñu leen di daan rek Fass daa mel ni. Oh, sonn naa. boobu kañ te ku dul taxu. ay temps moo doon baar Barça mu jékki-jékki mel ni lëm gi ASC lëm gi. gars yi jàpp leen di leen dóor rek. wala sa ASC yow ba sa ASC. waaw waaw dañoo baax ah. Ah. lëm gi mujjee bi mel ni <laughs> wala équipe boobu nekk fële nu mu tudd équipe bi dend ak Cité Port kii <laughs> Angle Mousse <laughs> ah man kat Fass xàmmeetuma leen. ah fan yii daa mel ni est-ce que. non bul wax Serigne Ndiaye bii rek de. Serigne Ndiaye moom dégg ñoom ñu ne fan yii am nañu mbër mu bees. ah ah, ah. moom Fass moom. wala yow loolu convaincre la benn sax maa ngi doon xalaat naan est-ce que du ñu jëli baal indi ko faas recruter ah, daan naa ko xalaat boobu bëgg naa Fass nag bëgg naa Fass te bëgg naa Omar. Ah. kon daal boo doon maanaam jamono yooyu bëggoon nga ñoom ñoom ñu dem recruter ji Balla Gaye moom bu amoon day ñëw. waa Fass jëli transfert amul ci làmb ji mais boo ci làmb ji ñoom dañuy jëli Omar. nga ne Abbas demal jëli Balla andil ñu ko. Omar ah. mënuñoo am benn mbër bu mel ni Omar. c'est impossible mënul Omar kenn la ci làmb ji loolu mayu yàlla nit mënu ci dara. am na solo loolu leer na léegi nag damay ñëw ak yow ci drapeau la tuddee. Mm-hmm. Hmm? maison du garde corps yu Sénégal yi def lu mel noonu zaal loolu biñ na ne tuddee nañ la drapeau mu jëm si làmb bi mooy bu njëkk bi bu dee bu njëkk la nu ko saal yëgee wala est-ce que nekkul est-ce que nekkul na bu njëkk wala du bu njëkk bi nañ ma tuddee benn nag fii zone de koñ bi hmm. fii terrain sones fëgg ku tudd fëgg la moo jëloon drapeau bi bi mooy bi mooy deuxième fois ñu tuddee ma drapeau mais nag tollul woon nii mais bu dee ci arène quoi moo tax may wax tey arène mi ngi may doog tuddee drapeau Bamba Faye moo tax Bamba Bamba maa ngi koy sant Bamba awma fayam waaw Bamba moom awma fayam. borom baax la Bamba. ma bàyyi ko Serigne Touba rek yëguma ci dara daf ma woo téléphone ne ma soxla ma xaalis soxla ma dara Serigne Saliou man nanga teew rek loolu kese laa bëgg waaw ndax bu dee xaalis man yoruma mënumaa tuddee drapeau yoruma dara animateur laa rek buy doog a sama carrière di góorgóorlu mu ne ma taal bi Serigne Touba gi nga nekk rek tax ma tuddee la ko loolu la ma wax. ma ne ko loolu moom dinaa ci sawar muy diggante junni ak boyloo. junni ak boyloo. waaw boyloo musul daanu. waaw war a dajeeg junni. junni yoof la dëkk laayeen la. sànq ñëw na rajo di Sikar. Ah. ma ne ko junni demal entraîné. <laughs> baax na. daan ba pare ñëw Sikar a gën a wóor. di way di gërëm rek. andi fa keseng keseng goo xam ne ma ne ko boy sa keseng keseng gi hmm. bu ko teg ci table bi téye ko. junni teel naa gërëm di. lu ne takk nañ ko fa. ah ñoom ñaar ñi ba fa ñëwoon. Ah, te booyloo mii ma gis dafa taxaw mooy bu taxaw la. Hmm. waaw junni nag mi ngi entraîné mais booyloo mii ma gis taxaw na de. Hmm. lamb ju metti ngay gis. <laughs> kon day samedi ah, nar ta wàññil si kar yi te nga entraîné. concentré wu ci bëree beeg dóor yi. lamb booy bi ma gis nii. <laughs> ah baax na moo gën a wër mbaadu. Ah, damay wax dëgg kat. conseillé naa ko de. te <laughs> naa ko billaay yaa ngi bëre drapeau wax ngay bëre de. xoolal li ngay def. te xam naa ne dara moom loo ca wax man boo ca waxee kilo itam dinaa ci jéem a dolli liibar moom. borom daaru boo fi daanoo wax naa ko neex boo fi daanoo. moom da ngay daanu chaque jour. ndax <laughs> lundi ba samedi maa animé Zik FM da ngay daanu chaque jour de. di nga daanoo daanoo daanu yaba góorgóorlu mu ne ma loolu du ma ci fekk <laughs> ko baax moo moom de yedd nga ko de. Mm. junni mm-hmm. di leen ñaanal nag ñoom ñaar ñëpp. Mm. ñoom ñaar ñëpp ah que le la rek. Mm. duma moom ku mën sa morom rek duma. Ah, foo la waaye ku daanu rus. Ah, bamba moom aw ma te bis ba moom. Mm-hmm. xaw ma am na yeneen drapeau xaw ma amul yeneen drapeau. Mm-hmm. mais moom sama ASC moom bu ñëwee. Mm-hmm. non ñoom Babacar dinañ xam ni lépp dëgg la. Badou Iba Mar dina am gan bés teq samedi. non non bokkul nag ah chaque jour moo la ko courant du nag. waaw nga dëgg ah am nga courant ndax taal tax. bokkul waaw ah. waree taal ngay xam ne duñ. salaamin boo ko defee du kay moom xam naa ne sa lekkum ceeb dana jafe. dëgg la mm. Bamba day jaay baax dootu ko defee de. maar dina xam ne fii la dëppee. dootu ko defati ci àddinaam. am na solo Baye Fall yi dinañ ñëw. Mhm. waa Chikoor yi dinañ ñëw. Mhm. ah may nuyu sax sama sëriñ fa laa waroon tàmbalee borom daaru ci moom laa su ko jébbalu mhm. maam Thierno Ousmane. maam Thierno Ousmane ñu koy nuyu di ko jaar di sàkku ñaan mbàkk. xam naa dimanche incha allah sax bu lamb ji jeexee rek dimanche fajar damay ànd ak waa axlu maam ma Sey mooy waa Chilem ñun ñëpp fa la ñuy yendu ñun par weekend dañuy dem seeti sëñ bi toog waxtaan ak moom mu ñaanal ñu ñibbisi. mooy waral nag ngay gis saa su ne boo ma gisee rek taalibe gi mooy feeñ ah, dañoo ne animateur la en avance mais pas mais balaa loolu yëpp nit laa ñu taalibe lañ am ñoo xam ne bu nekkee ci studio bi animateur lañ bu ñu génnee ay animateur lañ man nag loolu fekk ma ci boo ma jot ma damay fàtte ni sax dijjee laa <laughs> barke alxuraan dama koy fàtte loolu moom ñun dañ koy firndeel ah parce que sëñ bi moom ma ko wax mm-hmm. damaa toog mu ne ma bul ma sa jaay ay affaire yooyu bu mu nekk sa xel bis bu nekkee sa xel ma bàyyi la mm-hmm. te moom laa yaakaar àdduna ak àllaaxira waaw moo tax moo tax baax rek a ma war mm-hmm. ak jubal waaw tey leeral tey leeral kese yàlla nañ ci sax te yàgg ci amin yaa rabbi amin Babacar amin yaa rabbi amin mm-hmm. billaahi wallaahi taala léegi ñu ñëw ci tàggatoo bi mais balaa ñuy tàggatoo dama lay laaj tey tamit en que sénégalais làmb noo ko gisee am na koo xam ne tey ci làmb la bokk ñu koy wax Luc Nicolaï ñu xëy tey ñu ne arrêté waat nañ te mu taxawal combat bu mag a mag muy Ama Baldé ak Modou Lo mais noo gisee tey làmb nii. Luc nag bul fàtte ni ay ñi mu amal affaire dañoo am doole Sénégal bu ñuy fàtte loolu mhm. boo gisee ñu yeewu rek jàppaat ko nii mhm. ñi mu ko seqal ñoo am doole. ok ñu ngi koy ñaanal mhm. yàlla na génn ak jàmm mais du luy yomb ci moom. waa ñi mu ko seqal dañoo am doole. duñu ay sénégalais. du yomb mais ñu ngi koy ñaanal yàlla na génn nag jàmm ba lamb ji mën a taxaw ndax lamb ju neex la te lamb ji cool na benn combat bi rek moo fi taxaw bu mag ci bu mag lamb ji cool na des na tuuti moom démb maa ngi koy wax Omar des na tuuti ragal ko combat dootul am de waaye wala état bi dugal ci loxoom di tëgg lamb yi CNG ñëw taxaw loolu kese financé ñu tëgg lamb ji lu ko mooy làmb ji day cool de. day cool ah. non day cool. <laughs> ah kan moo fi des. ah na waar de. jeex gisoo mbër yi. fan yii. woo too de ñoo lay woo. ah waaw doy na waar de. naan la kaay jël ma. <laughs> mbër yëpp xoox fi mu ne nii. que ñëpp bëgg a bëri bëgg bëri bi rek de. waaw ak non waaw. finance ah parce que boo bëreetul. boo bëriwul itam day xaw a métti ci yow te yow bëri nga. ñu ci bari ku ci dil Modou Lo mm. ay Balla Gaye mm. ñooñu nga xam ni seen bis yàggul ñu taxaw ñooñu te am nañ jàppale Ama Baldé ñenn ñi ak ñenn ñi boor Niang am Gris Bordeaux Eumeu Sène Bombardier ñooñu mënal nañ seen bopp dara Tapha sax sonn na gëj na bëre de. <laughs> borom tax ci rib gëj na bëre. waaw moom gëj na bëre doo am xaalis noo amee xaalis da koy luxus xanaa. mënul nekk làmb ji cóol na laa lay ni te gis nga lii lii raam nii mhm. ah. mbaa du dem dégg wolof mbaa dem ca ñag ba ah <laughs> yàlla bu mu yegg waay lii raam nii lii raam nii te boo yaa ngi ci tefe si di entraîner rek ah. bu coolee dañuy koj nit ñi di leen rek <laughs> loolu laay bañ man loolu mu soobee eh? yàlla ah Sall loolu moom ah <laughs> bu coolee daal état bi na ci dugal loxoom comme que tabax nañ arène boo xam ni ay 32 milliards lañ sama papa ko tabax jéeri ko li mi ci somb maa ngi koy nuyu di ko woo ci bis bi sax waaw ah, kenn moom dina ñëw dina ñëw dina ñëw de mook ñoom Vaux Cissé mhm. Ibrahima Ba Nicolas mhm. foofu sama kër la. kër ah, sama papa la sama lépp la mhm. Ah. muy ku nangoo liggéey bañalu ma dara ah. boo waxee sa papa nag wala si sa xarit ñu ne dafa jéng. wala day dóor mais nag ku ne xam ne di Matar moom loo wax di wax di dinga xam ne amul morom. waaw ministre sport bi fu ma sa ñëw moom Matar du sa morom. sport réew mi de moom gërëm nañ ko xam naa ne. yaakaar moom bokkul ak ñii bokkul ak ñii boo toogee di waxtaan ak moom sax nga koy xam waaw. waaw vision am dépassé na lii Mactar bu ñu xëyoon ne ma mooy président de la république du Sénégal duma ma bett barke maam Thierno Birame bu ñu xëyoon ne la mooy jiite réew mi du ma bett mm-hmm. parce que xam naa ko xekkante naa ko kilifa la kilifa dëgg la te du caaxaan waaw Mactar loo ko jege jege jege da lay wax dëgg damay ñëw mu ne ma Serigne Saliou ma ne ko naa mu ne ma demal nga liggéey su may tappale mm-hmm. de xëyal nga liggéey ma ne ko sa père sa bopp bi tey de mu ne ma jogal nga liggéeyi xale day liggéeyi. waaw nekk na professeur nekk na lu ne te gis nga lu ko yàlla def fatik moo gën a metti ci àdduna te mu ngi leen di taxaw fatik kenn joyul Dakar kenn jooyul wax naa ko waa Fatick boo leen xefee waa Dakar nangu ko ci yéen Matar non kenn du moom billaay wallaay taala am na solo sëñ Saliou koo koy Saliou Khoulé ah ak ñun la woon tey ci drapeau bu muy waajal waaye tamit en tant que sénégalais ku ngeen xam yen ñëpp mu yëngutu ci réew mi ci li muy def tamit domaine am may ko ci nekkit suñu soppee yaa ngi dégg te olof a ko wax ku bokk ci gétt gi naan ci ñoom muy kat jour ma wax leen ko benn nit rek laa fan mhm. sama àdduna mhm. ginnaaw Omar mhm. ginnaaw Balla Gaye benn nit muy yow waay fan nit bariwul barke alxuraanu karim <laughs> man man fanuma kenn benn nit laa fan Babacar la tey bu ko xaw ma lu tax sax <laughs> waxuma la ko ndax li nga ñëw fii li ah del seetaan samay samay interview doo ko doo ko ma ko feneen de ndeysaan loolu moom yaakaar nit ñaa ngi may woo di ma wax saali xulli lim luy mais ci rajo bi sax du ma ko tey yal na yàlla yokk sa jàmm daal waaw waaye jàppal ne bëgg naal door bi barke alxuraan barke alxuraan maay sa soppe numéro un ku la laal laal ma ku la wax dara wax ma ko waaw ku la laal rek laal ma waaw yow yow yow jàmm ci yow rek jàmm du doy jàmm ci jàmm ju bari ci yow moom laa lay ñaanal suba ngoon gu dégg bëccëg yàlla nañ ko yàlla bool te defal ko waaw yàgg sama xarit ndeysaan sama rakk ju baax yéen yàgg leen fi téwéer rek di ñu bégal départ bi fan la samedi rajo ba waaw euh, am na ñuy ñëw fii am na ñuy ñëw rajo ba am na ñuy demal seen bopp direct stade mais nag euh, maa ngi ciy woo sénégalais yëpp na ñëpp teew ñu kaf ree mhm. euh, ku yàlla may ndam nga xam ni noonu la waroon demee keneen ki muñ waaye nag drapeau wax kat ngeen di bëre de drapeau wax kat <laughs> ngeen di bëre na ngeen góorgóorlu de. kontaan naa. maa gën a bëgg sama wàll sedd na. ak saa